asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokk yëpp di fas yéene indiwaat ay kàddu yoo xam ne kàddu seydina alxasan salaam radiallahu anhu la muy wax ci digganteem ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci xare badar ak ànd gi àndoon ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu ñu bàyyikoo ci kàddoom yooyu ñu koy ubbee danañ ci toftal kàddu sëriñ moo yaasin silla mi nga xam ne seeti woon nañ mu nettali ñun li ko Seydina Aleyhi salaam nettaloon ci xare Badar sëriñ bi xamal ko ni xare Badar ci laa bokkoon waaye waxoon na guerre ba demee ak xeex ba yépp ba ni muy eggee ak nañ taxawee si mu yasin si la incha allah ci ñëw ci biir waxtaan wi waaye kaddu yi koy ubbee muy kaddu Seydina Aleyhi salaam radiyallahu anhu di kaddu bopam mu wax ni ànd naa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xeex Badar ba Badar jeex dellu waxaat ni ànd naa ak yonent bi sallallahu alayhi wa Seydina hmm. Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di xeex Badar ba jeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole ma ak mbooloo mu néew yebal ma ci xare Mu'tata ma nga bu bi daal di wax ni ñu jam ma fii xeej jam-jam bi mi ngi nekkoon ci côté ndeyjooram mu di partie droite bi nee ci laa daal di faatoo ci xare Mu'tata ginnaaw bu ma jugee ci Badar ci laa faatoo suñu borom yóbbu ma ci niir ci asamaan ci ngunni yi ba saa yi mu ko soobee moom suñu borom ci ndogalam mu dellusi war ma ci amal lasasin lasasin mooy mille trois cent trente ginnaaw gàddaay gi muy junni at ak ñett téeméer ak fanweer ci ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na si la suñu borom dellusi waat àdduna jamono boobu nag nee na maa ngi tuddoon Zeyd ibnu Haris Zeyd ibnu Haris ku ne xamoon na ko ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne sa yonent bëggoon na ko ba xamal nit ñi ne sama doom la bu ma faatoo na ma doon bu faatoo bu ma njëkkee faatu ma doon ko waaye bi mu waree ñëwaat àdduna ci yoonam wi mu tuddee alxasan salaam nee na suñu borom mi ngi ko wàccee ci teenu njàkkaan ci lasasin bi muy ñëwaat daara duniya nee na wàcce ma si teenu njàkkaan boo fa wàccee bu sang si di root ñu téye ma sama borom téye ma bu jigéen ñi di ñu téye ma bu xale yi ñu téye ma ba sama ndey ñëw dugal baagam ci teen bi ma topp ndox mi dugg ci baag bi mu sotti ci paanam yenn yóbbu ca kër ga bu xale yi dinaa ñu téye ma ba sama nday mar dugal potam ci ndaali ma daw dugg ci pot bi mu naan ma daal wax ni foofee la sama dikk àdduna ñëwaat ci yoon wii mu tuddee alxasan salaam lii la Seydina di leeral ci kàddu yooyu kon ñu bokk teewlu sëriñ la <laughs> ولا ولا منيره قال مختصر من أقول لا فوضي يجي الموسيقى من يتنقون يشكو أثمان وفاة من يتنقون يشكو أثمان وطاي مخلص القلوب مجلسة مجلسة وقد أجد المسجين أن يتنقون المجلسة أدنى ورسين إنها أسماء Ah, secondary something. Jadi tu nak, oh no nak tu, nak, nak kami, ibu nak ibu nak saya semal, saya semal, mana tu, mana tu, mana tu bos bos bos tu bos, mungkin nama siapa sahaja. Kerja dah kita lalu hijau lah, ayat hijau lah, pun lah, lain macam lah sekarang lah. Pasal macam sekarang dia kan, banyak macam sekarang lah, yang macam sekarang sekarang lah. உதம்சேவ நிச்சயம் உதயவ நிச்சயம் உயிரின நிச்சயம் ஏனந்த பக்தி செய்யணும் பாபாவசான செல்விஸ்தேன் மத்தப்பட்டாலும் விலகும் ஒதுக்கு பொடுக்கு செப்பார்ப்பு சத்ம சிந்தவம் வந்தப்புல சேசு உயிரினம் அந்த செத்தது சத்ம சிந்தாரம் சத்ம செத்ததுனார் மீசப்பு நிச்சயம் உயிரின நிச்சயம் வசான சப்ப சமய சப்பதம் செத்தேன் மத்தப்பட்டாலும் ndax ma topp ci nekkam ak yonent bi sallallahu alayhi wa ñu nee Makka te noon yi xëral leen ñuy dem ba dem ba yàgg yonent bi jot ndigal ci gàddaay ne bi nu waxtaanee boo waree jàpp bis nga xam ne kuy dem ci kër yonent bi nga war a faranti kenn ku ne ba ngay génn sa kër sa laxasaay nga yor sa jeesi képp wacc nga sa jabar wacc say doom wacc sa alal wacc loo amoon mais biñ ci biir kër gi yëg na ñun ñoom yëfal ñu dikk wër kër gi fas yaa ngi def nii ñun ñi ci des taf taf kër gi nee na bu ñu demee ba àgg ci war a jóg daa war a ne wala na sa tamaa xaala ayin fas tabaxo siraata fa an yubsiruuna bu soxla ñu muur seen i bët ngeen dem seen yoon duñ leen gis duñ leen dégg. Mm-hmm. wala sax wala sax la ma sax naawum. Mm-hmm. sax mooy firi luuf. Mm-hmm. luf mooy mi ngi mel ne morso ndaal boo ci bi ñu nabal cere bés ko ba mu dem ci saat ndab la. saa borom day na xëcc tey dañ leen a téye ci suuf. waaw sax ma sax fa ma tax mu demee la bi ñuy génn yonent bi say sax la ndox la ngàbb. bunt kër bi ñaar ñett ñi fegg fii hmm. daa xiiw suuf ba mu rémbi ku ne mu tax mu sotti la ci sa bopp def ko giwét ñett fii ñett fii hmm. walee naaw nu dugul ci biir suuf si fii la naaw hmm. ne ba nu leen ba dem ba dem ba naaj bi tàng si lu bon tuskare ñu suuf leen ay ñu dem loola ñu fay dund duñu ko bi nu demee ñoom seen bopp itam ba dem ba dem ba dem ba dem ba dem nañu ba xam ne dem nañu te nee na xam nga fit ëppati na ci doomu aadama mm-hmm. aman alal ñàkk ko mm-hmm. aman soxna ñàkk ko aman doom ñàkk leen mm-hmm. ñàkk sa kër ñàkk loo aman di dee sa jësi ak sa laxasaay képp ne sa borom daal leen di kësu woon leen soxna yi ngeen bàyyi yu ko gën a nga nee doom yi ngeen bàyyi yu ko gën nga nee seenu fidèle seenu xel daal ñu mën a liggéey seenu liggéey wilaay kat loolu loolu lañu dara taxut yàlla tegi ni jaamu yàlla dara ah nit nekk fa na fa màkk nit ne fii ne fii nit tudd la la mu lay wax lépp nga di ko dégg mi xool ko ci téléphone bi dong damay ne jëfandi ay secret yàlla yëpp feeñ na ci àdduna fi mu ne waaw sëñ Assane nee na ba ñu demee Madina mm-hmm. nañu leen dalale mm-hmm. ku yoroon ñetti soxna joxe nga ñaar yi mm-hmm. ku yoroon ñaar joxe nga benn ba ku yoroon ñeent joxe nga ñetti ñetti sa benn noonu lañ leen dalale ba ñu demee bii fe nekkee ne fa ne fa ne fa nag ba xam ne mel na ne dellu si gi Màkka war naa jot saru isa jaa nasrullahi nee na guddi alxames la wàcc Madina bi mu wàccee ba jënte ku ñëw di ko laaj mu daal di ne saaru yees wàcc na ci Mouhamed hmm. ñu ne ko waaw mu laaj ko ñu ne ko ndax mu laaj ko soxna si hmm. mu laaj ko soxna soxna si ne ko du wala ko wax hmm. te ne jëmm ji ku la woon te jëmm ko yàlla bindee polom nga kattan nga ne bu mu tëggee soxna si am beñ euh, nobba jëkk fi suuf ne yoon tamit ne bërit noonu toog nu taj ko amiri daal di wax ni watawaaso bi xaqi watawaaso bi Muhammad yoon tamit taxaw waaye loxo na ba lu mu yoroon ci loxoom war naa mën a Abu Jahl daal di war ci kaw fas wi daal daal di daal di daal di daal di muy bisub alxames mm-hmm. ajuma ji ca topp ne ci lañu xeex ba sax mm-hmm. ne bi nu xëyee ba dem defaru ci xur yi ba laxasaay ba dox tuuti seen leen ci kaw tundoo ñu xay mbartal mu neex day see sa neenu biir ji xaar leen ci ci ci ci ci ndétal xur yi sa nee na hmm. yàlla dogal bi nga xamee ne Abu Jahlin ne tëll ci ko tundoo hmm. yonte bi ne ko sab hmm. xol bi wañaaru del ci pes moom dóor soos si démb ni da ko dóor ngir bis bi pes ma la xol bi bayiwu ne mu daal sëgg ne bam ne tëfit suuf ci loxoom ëf ne bam ko ko jooree wenn fepp yoo xam ne balu fital am na doy mel ni amut ne foofa la yem xamul ba dara dara xam leen mësuut ne fekk ko fa daal di këtt bopp bi bënn nopp bi bii ba mu sar ca morom moo xotti fil ci yaram bi nas ko ca takk ko yeew ko ci ngeenu fasam daal di war ne koor la ajjuma la mhm. mu dem ba bëccëg naaj wi tàng mhm. mar wi metti mhm. yonte bi ñaan sans borom ëf ngelaw ne bi ngelaw li ñëwee kum ku di jur bo sa xol da nga liw ku di yéefar sa xol daa mel dañ ko pétrole taal ko eh, te iblis mi ngi wàcc lonk ñaari baram ñaari ba aw sufyan ne général arme naa di nañ aw fi nañ aw fi nañ aw fi ne hmm. bi lolou amé iblis dal di wax abou sufyan ne ko legi nañ tass combat yi xam nga dawuñ sot lu metti metti kento hmm. kento ku daanu sama ñu taw way dawuñ sot hmm. mu ne ko legi fu kenn nek nako fa ñaar mbaa ñett fek ñu gul lu loolu duñ mën a soyee téyent bi lumière bu sama xel de wax ne mi ngi mel ne bu nangu bu ko bu ko tim di wax non la koy déggee ne yent bi daal mooy daal di wëlbati ko bitter yaar soxna dal di ñaan wala gi dik ne ba ñuy ñëw nañu toll képp képp képp na la wala nga toll képp képp kenn rek lañ fa bàyyi muy koo xam doom doon doomu bàjjen yonte bi saay saay bu mel ni golo hmm. te te yonte bi ne ñaan naa yàlla mu nasaxal loxo bi te ngeen bàyyi ko hmm. mu bañ a lor kenn tañ bañ ko lor hmm. kookee boole gi ñëwee dañ ko faa ba mbokk lu bon bon rek na ko sutural dégg sëñ Assane nee na ba nga ba bàyyi gars yi ne kenn ku ne doj ba nga yoon doj nga yor konko sànni mu dal ci diggu boppam jaar ci buntu suuf bi dog ginnaaw tur gi fas yi wàcc suuf ñooy mm-hmm. la sim benn yoon mm-hmm. nes ko ne yoon xam naa mel ne xol bi bëgg naa jóg mm-hmm. euh, euh, te suñu borom nanguwul euh, dam suñu mu raay ko ne wama ramate ndax yow yaa sànni ma sànni xol bi tuub mu daan ko wala keneen فقط هداي بالخبر سلمه والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين تولك يا القرآن والحمد لله رب العالمين يا ريو ذاك الأم سبحان ربك رب السماء يسوع السلام الأمر سلام والحمد لله رب العالمين فوي ما يدل عاجل لو نخر في النخ فوق نقوى لو لو لو خيصو نخ شيخنا باكم مثلا كو وقت على كندا كارو دبر يجي مفيتي آه، Euh, euh, euh, daabir jooju mu féeti fi rek ginnaaw ma ne ko déedéet du ginnaaw hmm. bëgguma caawoon daal ji ma ne ko sëñ bi lii sant Mbàkke alxuraan rek la hmm. te alxuraan nee na wala tujaadil kitaab bu leen teeg boroom xam-xam yi ilaa bi la si instant da ngeen sa jublu ak leeral ak rafetal waaye nag bu ca maa nangam naa ma bu ca dara jub duggee yàq du daabir jooju mu ne ku liif gi doon gañ doon mbooloo moo mu def jamono moo fi dugal liif gi waaye du yi def aw tax buum ngi takk buntu suuf ba xaytu yi du mën a gént borom jubluwu ko buum googu la suñu borom daggal na ko way tooñ ña waaw léegi bi nga xamee ne loolu jeex na ne ñu dem yàggu tuuti ay yow ma akmat lëkkum dinakum ñëw mu xool ay bi sans borom ne liggéey bi mat na wàcce naa li ngeen ko bëgg ni ko bëggee defe ngeen ko maa di si seenu añ tey ak ëllëg hmm. yonte bi daal di woote màkk ñetti fan woote Madina ñetti fan ne képp ko xëye tooñoon naa la na nga dikk fay tooñaa ngi kooku bala noo dem bis penc hmm. ne xokaasata euh, euh, wax ko ne ko man day keroon yi dem Badar dóor nga ma damaa xamul danga doon dàq jubloo dàq sa gëléem xamul da nga maa jubloo dóor ويدور من صبر صبر صبر ناي أنت بلا أنا بلا ملك أتى الخليفة يتمسون بحده نعم يدو أني يا مدا أكاس خوش ناي سابي كن كن يجوك تخوه بي جوي يا أنت بلا تقول يا الجن سما خل سما خل خال كمان أصلا قوي سين يجوك واه بي بي سين بوي سين يلاقون يا أنت بلا تقول داري فاب ياربي جبل أكاس أكاس نيكو خلر بي إندي أريان دورو مود yant bi daal sëgg daal di ngëm guuma ba mu ko fekkee naka xaatim ba feey xokkaasa daw réesu xaatim bi ne ko musuma ànd mu dóor la benn yoon waaye bëggoon naa sama yaram laal sa xaatim bi ngis naa borom yàlla ci sawara bu fii tey balaa action woowu ab dafay jaar fee toj boobu ba la muy na ci nit lool dégg nga ne so yant bi daay wax ne képp xool kanam okaasa loo amoon ajjana fu lañ ko yar ko amoon yaari kër am nga yent ku amoon genn am nga yaar ku amoon fukkit am nga jar looy amoon añee taxol karam occasion bisite loolu ful nañ ko yar ne yàggul dara wéri di nga ñëw ne fajaru altine lanu nekk ci jàkka ji dégg bilaal muy wax di yow na yàlla te ni lam tax di fi ummi donte kon man tey ma bañ a juddi ci sama fekk daa ñëw daa dikk noddu ci kër yonent bi bu salaatu jotee mu ànd moom dikk salaatu boobu yoon nag ne àll yi mu jëkk mu ñëw bi mu nodd bi salaatu jotee mu ne ko dama wax Abakar mu jiite mbooloo ma ba muy ñëw nag lay wax kàddu googu doonte kon man tey ma bay judd ci sama tey ne ba mu ñëwee di ko dee Abakar anto wax na ko ko ñu jóge Abakar ñëpp nañ ko ñu jóg naka liqaam bi ak kama bi jóg jib di yonent bi rek saabay kenn ko daa teg sa bopp fi fi ne yonent bi daal yónnee wóolu saa bu yox euh, fallu ak seen naat yi ñoo ko jënd ci kër gi mm-hmm. indi ko moonu jiite ñaari rakay suba yi waaye ne bu mu tëjee tasamamit mm-hmm. la lamu daal di wax mm-hmm. faxla mo anatari axim axrim min dunia bis ne tëjee mooy sa mujj bis ci àdduna te sa mooy mooy sa njël ci laaxira daal aw yoon kër ga yonent suñu borom daal di woo maliku ne ko nag maa ngi leen di jàmm gërëm demal firlo sangul sol yére yu rafet solee ba na nga ñëw indi ko bu na wuti ñu bàyyi fa te ne ba mu dikkee ci buntu ne bi nuyoo xam nga waaleykum salaam delloo ñaan la bu ñaan gi jibi dafa war daal dellu waaye da war ne tekk alxuraan dane da ngaa war ne tekk ba dégg bisimilaay waaw nga door a dugg bi mu ne asalaamaaleykum ya ahlu bayt nubo waaleykum salaam mu ne tekk diwlu ba mat yàlla mu ne aduxul ndax ma tàbbi hmm. ne son si ni ko rasulullah masxon bi naf si yonte bi dafa am soxla ci boppam ba mu nuyewaat nag yonte bi fay ko mu ne aduxul ndax ma tàbbi mu ne ko aduxul tàbbi mu door a dikk ba mu dikkee yonte wax son si di ko wan ko di ko misaal maliku melaw mawti ba mu xam ne moom mu yebal ko ci kër gi daal di fii des ak maliku daal jibril mu ne ko mu ngi ci bi mu ne ko wol ma ko woo mu ñëw mu ne léegi demal sans borom laajal ma ko woote bii mooy wootey lum ma ci jox ab yóbbal hmm. ne mu ne ko hmm. euh, euh, soo demee ne ko ruuy yonent yëpp ngi ci buntu san di tur di teeru ruum gi hmm. na dellu ne ma dolli mu dellu ne ko soo demee ne ko benn yoon dugg añeen te daf caa dugg ba noppi mu dikk mu ne ko dellu ne ko na ma dolli mu dem mu ne ko soo demee ne ko wenn xeet du dugg añeen te du xeet wi dañ caa dugg ba noppi mu ko xam mu soog ne alhamdulilah rabbil alamin daa di geesu malikum la ko wax ne ko bisimilah ñun tuñu suuf mi raf na yaar yoon képp ci lu ñu mën a tuddee sukuraat ci doomu adama am na yu bari yoo xam ne dëgg la boo xam ne ku teg safara ma dugal ci sama loxo ci ne dëgg la te du ma leen ko wax mukk ndax du ngeen ko gëm du seen bopp suñ borom li mu feeñal li mu feeñal bu dee benn lim nëbb fukki junni milliard la yoo xam ne jaam yi duñ ko xam lu dul yemal xiyaam